nepat man en nice na sax ni nga musooroo tey ni nga koloo neex na ma wax ak yow mais doole ma sukaa nepat ah waaw ni nan laa ko mën a waxee dana mel ni <laughs> cabaak baara kii def ma présenté ma comme ni nga présenté baara maas yooyu lay kaas wax na dëgg def na comme ni wax na comme ni nga wax baara. dëgg euh, donc <laughs> euh, tey nag euh, ñu ngi fi am ki nga xam ne rek moom moo di mbay Ndiaye ak maître El Hadj Diouf nag moo toog mbay nuyu na la Ndiaye. Eh, maa ngi lay nuyu soxna si. Mm-hmm. di lu teewaay bi. Eh, ni nga nekkee professionnel nga xam ni yow moom koo invité rek wax dëgg fa say waxtaan dafay neex si damay am envie di ñëw ci sa plateau bi. parce que léeg ma ñëw sax fekk fi ay bojo bojo waaye yow <laughs> wax dëgg fa yàlla ah doo bojo bojo kenn yow teew ci sa plateau kontaan naa maa ngi lay nuyu di la siyaar di kontaan ci <laughs> moom bojo bojo nekk tey. Mm, waa mbay mm-hmm. euh, yéen nag am ngeen fit nag yaay mm. ndax ngeen ni yéen a jël majorité léegi danoo bëgg nga calculer nu mm. lu tax ngeen wax ni yéen a yéen a jël majorité bi. Eh, jërëjëf professionnel Souka sa liggéey rafet na nga xam ni wax dëgg fa yàlla li nga def nii la fait ka nga woo ma pour ñu def élection yi mathématique pour leeral ni nga xam ni noonu la résultat yi tëddee diggante parcelle 1 mm-hmm. ba 26 ni yëf yi doxee mm-hmm. xam nga boo gisee ñu ne ñun ñoo gagné. Mhm. dafa am ay zéro tien yoo xam ni gars yi calculé wuñ ko. Ah, diggante unité 3 ba unité kii dafa am ci diggante yoo xam ni ñun dafa am foo xam ni dañ faa amoon zéro tien foo xam ni dañ faa raw. Ah. maanaam unité 22 jàpp unité 23. Mhm. diggante boobu dafa am ñaari zéro tien yoo xam ni gars yi calculé waale wuñ ko. Mhm. unité 6 unité 5. foofu amaat zéro tien mm-hmm. zéro tien yooyu boo ko boolee dalay jox quatre zéro tien ah. quatre zéro tien boo ko pilisee ci li ñu am def lay jox loo xam ni dañuy romb waaye wi loolu <laughs> gars yi calculer wuñ ko ah. loolu mooy li nga xam ni mooy mbir mi yépp foofu la tënk ko d'accord zéro tien yi xam nga moo tax uh-huh. euh, boo deful mathématique boo déggee bureau sangam bureau sangam nga mm-hmm. yem ci bureau yi fekk ne journaliste bi bureau rek la wax waxut santar bi ah. bi ñu demee ci santar yi dafa am santar yoo xam ni maanaam nga raw ma ci bureau bi eh, fee nga raw ma fa deux fee ma raw la fa quatre mhm. kon boo boolee zérotiens bi bureau bee gagné woon nga ko bii gagné woon nga ko waaye bële dama la faa gagné loo xam ni def laa gagné fii gagné la fee bu ñu ko boolee ci santar bi zérotiens yooyu day yéeg ci kaw bureau yooyu loolu la moo tax mathématique des fois am solo. te wax fa yàlla moo tax palaatoo yi yiñ ma woo bari na waaye dama ne bii rek. <laughs> dëgg la bii rek parce que bii dama yow <laughs> xam-xam bi nekk ci yow ak intelligence bi moo tax ba dee. nga. gis nga. ko. gis nga yow yàlla moo la def parce que dañ koo jàng. dabu la xam nga daan musique ba ci yàgg dugg ci laaj yi ak tontu yi doo xam fi ngay teg sa tànk waaye yow moom lii danga koo jag génnee sesti macha allah mbaay teg fa yàlla sa papa yàqut bim lay dugal école yëgaleen waaw léegi waaw mhm. zéro yi bul ko fàtte géretien <laughs> yi moo ma indi fii. kon yow ça veut dire que. Mhm. yéen fépp fu ngeen gagné rek. ay géretien la kon fi mu ne cee géretien gañe wuñ ko waaw mais waaye dañ faa am loo xam ni bureau deux gañe wuñ ko waaw bureau trois ñu gañe ko loo xam ni buñ ko bu zéro ceewee ci ñaari bureau yi day ko yu bit yooyu day europe mooy zéro ceewe <laughs> la damaa xamul ci mathématique ah, moo tax nga war a noppi moo tax nga nekk journaliste moo tax nga nekk léegi mbay journaliste yi euh, léegi nag mbay nag mm-hmm. euh, parcelle gee ñu ne waaw ana Moussa Sy Euh, Moussa <laughs> si de mi ngi fa ak leelam. mbay loolee loolee xool Moussa bi. ana Amadou Ba. Amadou Ba dem mi ngi lambar lambari moom. yow moom xam naa sax bokkuñu mais euh, mm. fi mu ne maire actuellement. Mm. maire ba ko gagné ne parcelle kan la nu tudd xale bu ndaw. <laughs> ñoo caw seen xiir. ah caw sax yi waaye kim ko caw nga war a xool borom leel bala ko caw ci leel. yow Moussa nee na yéen a ah? si boppam moo ko <laughs> si daa àndoon na Khalifa Sall defee ni moom mooy mbir mi ah. te mbir mi li ci gën a doy waar nag mhm. mooy mu yor leel di xeex ak boroom xiir mhm. <laughs> caw sa xiir caw sa xiir calliyal balaa dal calliyal balaa dal caw sa xiir caw sa xiir jërëjëf jërëjëf eh, Mbaye ah, mu nekkoon ki nga xam ne rek moom moo di Mbaye Ndiaye ñu dégg li nga xam ne rek moom moo di kàddoom mu ci nuyu ki nga xam ne rek moom moo di Grital eh, Grital Mbaye waa Sigi jot na maa ngi leen di nuyu ñoom Ablaye Dieye yi ñu fa nekk ñoom Nafi Ba maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di fëddali sama collègue ak ñoom Xila Dieye maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ñëpp ñëpp si de la part de Grital Mbaye eh, donc buñ jógee ci mu dañuy dem ci ki nga xam ne rek moom moo di maître El Hadj Diouf maître El Hadj Diouf nuyu leen la Diouf ñoo xam nuyu Sénégal di mhm. nuyu àdduna di mhm. nuyu toute la famille eh, di nuyu ñëpp mhm. di la di la dégg maa ngi lay fay lu bëree bëri waaw Ousmane waa Maître El Hadji Diouf <laughs> wuy ma félicité félicité nga ki nga moom moo di Sonko parce que yow yow yaa ni woon Sonko Ziguinchor du fa am dara parce que da nga ni woon kenn bëgg ko Ziguinchor te mu ngi nii am na fa dara moo jël mairie ba te ki nga xam ne rek moom moo di borom Rufisque Jasaaka euh, mam góor woon na ko ba félicité kii woon na ko benn waaw ah, jërëjëf soxna euh, ne woon sax booy boobu dootuma tudd turam parce que euh, waa Ziguinchor woo nañ ma ne ma waaw waa Ziguinchor ñoo la bi ma ko tuddee lañ ko xam. waaw yaa ko may buzz moom. maa ko defal buzz. Mhm. mais nga ko bu baax sax. maanaam dew ma Casamance mais maa ko campagne. dëgg la. Mhm. parce que bi ma nee kenn xamu ko. Mhm. loolu ñëpp ne koo koy kat. contre bu ma Ziguinchor contre moo tax ñu voté ko. dëgg la mais Abdoulaye lañ doon voté mais comme que waa Ziguinchor dañ maa contre. daal mere nañu métti laa Diouf te moo ne xamuñu waa yi nañ ko voteel su ma yëgoon du ma tudd erreur boobu rek laa def. li mhm. ma tudd turam. Mhm. mu gagné. bu baax sax man ci gagné que man je suis de Kaolack sama yoon nekku Casamance. Ah. bu gagné ak bu gagné wut sama yoon newu ci. Euh, kon noo gisee euh, kii maam góor waaw maam góor ça concerne que lui. dëgg la man sama yoon. nekkul ma ko tey félicité wu ma ko lëkk. sequma moom dara. doo wax sax tuuti turam Ousmane Sonko tur bi laay bañ a tudd parce que bëggatuma ko tudd parce que dafa mel dama koy tudd muy gën a jëm kaw. Ah, boo ko tuddee turam tudd ba naka ni day yéeg. damay nokki nag mu wàcc loolu wax nañ ma ko nee nañ ma fi mu yàgg tey yaa ko fa yóbbu. Hmm? parce que yaa ko contre di tudd yow yaa am buzz kenn am kenn xamu ko woon léegi yaa koy defal buzz. Ah, ah. léegi dootuma ko tudd. dootoo tudd booy bi laa wax rek Ousmane Sonko booy Kaza. monsieur le maire point. monsieur le maire kay ngay ah, wax sama yoon monsieur le maire Ousmane Sonko man sama maire honorable sama maire. dëgg la ah d'accord wax nga dëgg. dëgg la. waa nekk moom jàpp Modou yow nag eh, Maître El Hadj Diouf yow kenn xamul foo far waaw ñu ngi lay dégg ci sa conférence de presse nga ne ki nga xam ne rek moom moo di président Macky Sall du ama troisième mandat yow àndoon na woon fii temps yi ak Macky Sall. Ah, na kii politique caabi dara temps nga ne nii bu ne ah nii loolu mooy politique nii la njaafe njàlle njaafe njàlle. waaw léegi kon ànd ak président Macky. daa léegi damay défendre. contre troisième mandat. su ma contre troisième mandat. parce que looloo xew. parce que boo ñëwee doo dangay xewi. ma dama xam système bi may jaar pour xew. du allah. ah jërëjëf Diouf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf félicité nga sa maire bu bees bi nekk Dakar. Barthélémy Barthélémy Dias ki ko doon wax naan ku ko fal fal maire bi la. Dakar ñoo ko def. <laughs> am bi laay tey ñu dee. waaw. Barthélémy mi nga xam ne amul maire buy campagne di saagaante di sànni ay xeer maire bi xam nga ni am ngeen problème. Eh, dëgg la jërëjëf tey moom yéen a ngi nag ku am problème. dëgg la jërëjëf incha allah je vais retourner dans mon pays Kaolack. Eh, eh, yaakaar naa ne naa gis. jërëjëf li ma bëggoon a xam yëpp xam naa ko donc di leen jox rendez-vous ba ba lundi incha allah. nga 4 minutes professionnel. may naa la ko. waxal la neex sam papa nag nee na euh, dafay dem. Euh, sam papa nag nee day dem euh, maire Thiès Est Ouest nekk fa maire. macha allah nee na ko waa. kees weese du Mamadou Jiite moo fa bàyyi ma non dinañ ko dalal dinañ ko dalal lundi dinañ ko dalal fii Birame Souleye mooy noor nee daal xawma ku gañe waaye nee na moom daal incha allah dina dem sol drapeau vert jaune rouge am mm-hmm. waa kër grital mm-hmm. ñu ñu gunge ko mm-hmm. mu dem dem toog ca siège ba waaye li ma jaaxal béti mooy bu fa demee police yàlla bu ko fa fekk <laughs> jële ko fa mu ne leen man la alaaji maam en tout cas mbay daal waa waa d'accord donc euh, ñu félicité Thiabanati euh, vendredi passé lañ leen deko doon mhm. décoré fële ca CICES muy bokk ci 100 femmes leaders yi nga xamante ni étoile production tànn na ko malheureusement joxe naa photo bi ci régie bi mais nee nañu wàccagul Thiabanati ñu ngi lay ñaanal mu jig la ndam yi jig la yu gën a ñëw mérite la vraiment ñu ngi lay ñaanal bu baax ma mago Thiawa sama xarit euh, doomu mamandooye Thiawa Thiaba encore une fois yàlla na la jig yàlla na la jig bu baax mais nag yow yaa war a dolli dadi nag wax naa la ko yaa war a dolli dadi ah, moo war a dolli Ah, wax naa ko ko tey ci suba mu ne ma ah ah la tax a dolli barke bi lay wax ay <laughs> ca mi ngi noonu mais nag Fatmata Seye ñu ngi lay remercier ci maquillage bi ndax yaa ciy jàpp nag vraiment ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax Fatmata Seye merci beaucoup madame Ndir ñu jaajëfal yéen ñi doon seetaan ak les amis également di jaajëfal képp koo xam ne jàpp nga ci